jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen kontaane te di bëgg ci yéen bu baax a baax ci safoo gi ngeen safoo ak jox bopp bi ngeen jox bopp tey nag ñoo ngi fii ci wasaare ci émission bu mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su mu nee jàmmaarloo nag xel yi dem ci mbër yi waaye mbokk yi su mu nee jàmmaarloo xel yi dem ci amateur su mu nee jàmmaarloo xel yi dem ci supporter yi ndax euh, jàmmaarloo moom képp koo xamante te day bëri wala képp koo xam day seetaan làmb rek suñu nee jàmmaarloo sa xel dina dem ci làmb waaye mbokk yi tey maa ngi fii ci wasaare dalal ay xale xale yoo xamante ni nii làmb da leen a yaakaar xale yoo xamante ni nii ay ndaanaan lañ ci wàllu làmb ndax damaa dugg géejuwaay jël ki nga xamante ni mooy Baye Mandiaye Baye Mandiaye numéro 2 mbokk yi su ma leen waxee Baye Mandiaye xel yi dina dem ci xale bi nga xam ne bu jógee waa géejuwaay jóg su jógee képp kuy ASC nekk bi géejuwaay di nga ñëw jàppale ko waaye sama gauche maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy caatu ngéwél su ma nee caatu ngéwél nag xel yi dem ci yoof dem ci yoof dem ngor jàpp almadi su ma fa jógee day dem sax ba Kër Masaar ndax moom dafa dafa dafa dafa bàyyi su ko dem ba foofu xale la boo xamante ni mbokk yi nekk na xale boo xamante ni képp ku nekk ci làmb nekk xale bëgg am foo teg sa làmb sa sa sa xel ci làmb di nga bëgg a ak moom ndax ñi may woo di ma boole ma ak caatu ngéwél dañoo bari du ma ko nëbb fii laa koy waxee ba tax na nag tey ma invité leen dalal leen ci ci jàmmaarloo bëgg waxtaan ak ñoom seen kaw làmb ndax ñoom ñaar ñi seen combat yi mujjee bëre ku ci nekk ndam nga ci am ku ci nekk am nga ci ndam Baye Ndiaye moo ngi mujjee bëre ki nga xamante ni mooy agogo daan ko ak manière caatu ngéwél bëre ki nga xamante ni mooy alliance biram bëre moom daan ko jël boo xamante amul benn werante ba tax na dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñëweel waxtaan wi caatu ngéwél nuyu naa la. yee maa ngi lay di sant yàlla di julli ci yonente bi di gërëm sunu ñaari waajur di nuyu waayof yëpp di jël nuyu waayof di ko teg si loxo xalifa bi di ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak wér muy maam Duudu Laay di ñaanal baa Abdoulaye Thiaw yàlla na ko yàlla teeru teral ko te yàlla tas nu si barkeem di nuyu njabootu allu bayti rasul góob di nuyu Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ni moo fa nekkal sëriñ Touba aussi di nuyu sama sëriñ sëriñ Cheikh Fall ibnu maam Saliou Fall di ko jaale maama Samba. borom laaj ci waaw di wax moom tamit yàlla nu yàlla tas si barkeem. wax sëñ Jëmb Fall xalifa bi nga xamante ni mooy xalifa Baye Fall. Mhm. jóge fi bëri ki démb moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla teeru teral ko. Mhm. taas na si barkeem du nuyu Njaay de bu baax a baax. di nuyu copain am bi di nuyu sa caméraman bi di nuyu sama boy ma àndal xaarim kan maa ngi lay mhm. bëggee bu baax. ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Baye Mandiaye nuyu naa la. Ah, auzu billaahi mina seytaani rajim ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant sama ay ñaari waajur di sant caatu ngéwél ma bokkal plateau bi di ko nuyu di ko siyaar bu baax xam nga di sant sama waa waa guy gi njëtt mbaar gi moom si réew gunaas géejawaay gi di sant sama yaay di ko ñaanal gudd fan wér gu yaram ba mu fekkee suñu njëriñ sama papa yàlla na ko yàlla xaare aljana di sant njool Malick xam nga di ñaanal yaay ji yàlla na suuf oyof ci kawam di bëggee jibi bale bi ma àndal ak sama copain gaanu caatu ngéwél bi di bëgg caméraman yi den suya bu wér di bëgg àdduna hmm. di bëgg àdduna ana waa géejuwaay waaw ñi ngi fa géejuwaay ñi ngi fa temps dégg naa mbëri ay jour lañ waaw tànk làmb ji dañ koo téewoon kat te toog bi amul benn important xaw ma mbëri moom mu mun na leen boole dëgg la mais tamit du tere ay nit lañ ñoo bokk ndey ak baay hmm. yooyu dañuy fubal rek foo gën a xamante suñu biir parce que mën nañ dem di demalante leneen sax lu dul làmb parce que làmb métier la rek liggéey la mais bu jeexee jeex na moo tax quoi. mais dama leen gis ngeen di football daan ngeen ko def yéen seen biir mais léegi ngeen di dem di football ak waa Parcelles jóge fa di football ak waa jàmm gën keroog sax dégg naa dina leen doo doo yu métti sax. waaw boo xoolee football nañu waa waa jàmm gën. Mhm. aller ñu nag jàmm gën dóor nañ ñu benn yoon ñu dóor leen ñaar parcelle. bi mujj laa wax bu bàyyi waaw bu mujj dañ dañ ñoo gañe. waaw parcelle waa jàmm dañ leen a gañe. <laughs> non jàmm gën ñun ñoo leen gañe. parcelle gay ku nekk daa gañe sa morom benn rek. Ah. waaw da ngeen match nii la quoi dañoo match nii waaw ah. waa parcelle. noonu la caatu ngéwél yéen yéen a ngi ci match yi wala yi. waaw ñun moom fu bolaguñu woon mais tey jii daal lañu war a zee. ñoo ah. suñu tëggkat yi waaw. léegi doon comme que làmb tëjoon nañ ko daal ngeen a xaar ñu dem fubali non non xam nga match yi dafa doon loo xamante ni maanaam tey jii nii day boole te day neexal tey jii mhm. ndax xam nga mbëri am na ñoo xamante ni ñun ñëpp donte ni ñi ñooy bokk écurie ñooy bokku secteur mais ku ci nekk da nga am point boo xamante ni fa ngay laaxatu mhm. comme bu saison bi tëjee match yi nga xamante ni moo fi am moo ñuy mën a dajale pour ñuy mën a amaale benn esprit de groupe bi loolu rek la mais du leneen mais mbër yi nga xam dañuy entraîné duñ daw dañuy cokki cokki football moom bal bi lay daw est-ce que mbër yi mën nañoo football. non mbër yi dañuy daw mu ci bu bëree deux minutes bàyyi. Ah. gën a métti football de. da ngay tax a di liwaatoo yàlla bu ñu la dugalee. waaye bëre boo jàppantee ba bàyyante. <laughs> une minute gën a métti quatre vingt dix mille. Euh, mu nekkoon combat boo xamante amoon na coow. combat bu amoon coow la. Euh, ba tax na kaw seen combat bi yombul yow ak moom ngeen bëree fa bëree bu rëy boo xamante ni képp koo xamante ni ñëwoon nga ci stade bi. kontaan nga soxol sedd na sa diggante yow ak moom combat bi nag la demee. waaw sama diggante man a alliance room combat bi dafa doon loo xamante ni dafa jiitu bu yàgg si bi may door a débuté ñu ñu am ay genre jàppante yu ndaw ma ak moom estaat ba policiers yi jàpp ñu ay détails am xam nga instant boobu nag moom moo ñu xawoon jiitu xam nga. boobu combat bi taxawagul. non loolu li ma lay wax boobu man est ce que aw may deux combat xaw ma ñu jàppante jàppante bu miti bu. da ngeen doon dëkkante wala. non xam nga rek mbërëx mbër moom xam nga mbëri moom des fois ay peleñaa day am mënul ñàkk. Mhm. mooy loolu ñu am benn peleñaa bi dëkkunte coow am fa après mooy loolu détail détail mu ne du ma bëree yow dugg na fi génn fii après ñun tamit ñu nekk suñu waar di góor di góorgóorlu ba dem ba làmb boole ñu bëre. aussi mënul woon a doon koo mbaa boo xam ni combat bu yomb la tamit ndax xam nga tey jii mooy fi mu dëkk dama faa dugg am lu ma fa def quoi muy yëmbal daan fa quatre personnes mu ni bu mu jaam ñu ci moom lay daggee. daan nga fa ñeenti nit. waaw moom muy cinq mu war moo di woon nag bu mu jaam ñu ci moom lay. daggee kon yëmbal xëccoo monsieur le maire bi sax <laughs> xalaat naa. yéen nag yéen fuuy de. <laughs> fa laa mujj de. Ah. déposé fa candidat waaw comme te armée laa bëgg mu ñëw ñu bëre fa mu tapet kañ. waaye ma dem fa rek déposé fa monsieur le maire. daan daan daan daan alliance tax na nga da laaj armée mais tey ji yow bu ma duggoon sa kër. fekk fa sa ay rakk di leen noggatu bu boobaa nooy def. kan man. waa oh, question laa bu dee bu dee man kay damay damay dama <laughs> leen di jël revanche. waaw kon kay armée la bu dee man moom dama leen ma mënee na ñëw du ba ma ndax ku noggatu say rakk. mais naka ngeen bëree yéen ñaar parce que dañoo gis combat bi nekk kombaa bu neex kele ci kaw kele ngeen bëree làmb ju rëy làmb ju neex joo xamante ni moom keroog euh, ñi fa gàncax combat bi andi woon sax biñ leen seetaanee kontaan nañ ci yéen. naka xam nga bëri nan moom wax dëgg yàlla ndax tey jii gars yi dañ lay gis nga bëree benn combat ñaar mhm. ñu yaakaar ni yow mooy loolu alliance xam naa ne ñu ko daroon ñëpp danoo yaakaaroon ni damay ñëw samp jaaga ne di xeex mhm. te mooy làmb ju ne ak li mu laaj bi arbitre ne pip ma ñëw moo tax ñu yaakaar da ngay xeex ak moom xam nga man sama combat moom mooy loolu day am xeex day man moom damay bëri di dóor oh, wax dëgg yàlla man moom damay bëri di dóor léegi nag mu yaakaar dañuy xeex ma ñëw mbapat ak moom ñu bëre bëre bu neex ñu bëre bëre après mu lëmu sama wet. waaw bëgg maa tegal siis ma jéggi ko téex ko mu jaaxaan. mu jaaxaan gis ngeen ma jéggi mu mu laxasu wet bi mu teex ko. waa mu tegal ma siis ma jéggi. tegal siis bi teex ko cop ko cop bu ndaw rek. mu jaaxal <laughs> donc yëfi ngeen soo <laughs> jógee ci yow damay ñëw ci Baye Mandiaye Baye Mandiaye ma gis sa diggante ak Agogo signature ba lu ne la signature ba na nga ne ko lan dugg nga paase ñaata yoon yow. ñeenti yoon. yow tam dugg nga paase ñeenti yoon. teel micro bu baax ajal micro bu baax. dugg nga paas sa ñeenti yoon parce que gis naa gis naa keroog ba ci signature ba sax yaa ngi naan Modou Mbaye kaay kii mm. fii kii nii laa ko daanee fii kii nii laa ko daanee fii kii nii fii te moom nii laa koy daanee lan moo taxoon nga sous-estimé woon Agogo da nga koo xeeboon par rapport ak bi wala da nga jàppoon yaa ko mën wala lan moo taxoon nga nga nga xeeb ko daal andil ko coow lu bari ne soo nawee daanu mm-hmm. bu bés ba jotee lan nga waxati woon sax dama na ko yi ci ajal micro bi dama na ko bis booy moom bu ma naree daan jël sama bakkan parce que ñun ay xale lañ. Mhm. dañuy liggéey. yaa ngi dégg làmb daa métti. mais da nga xaw a sedd nag. da nga sedd man Bayo Ndiaye bi ma xamoon. ak Bayo Ndiaye bii ma gis dañoo xaw a wute. wala caar ngéwél moo tiital caar ngéwél ñëwagul ci yow de. nii la ma yàlla bindee nii laa mel. non meloo nii moom man xam naa la caar ngéwél sax na ne meloo nii. non laa mel nii lañ ma yaree. am yaa ngi moo tax ma ne la meloo nii Bayo Ndiaye ba li nga def. billaay làmb tax nit di xam ni suñu jikko sax mais man doomu géwél laa nii laa mel nature laal sama gars yi may àndal. <laughs> ñu lay seetaan sax xam ne duñ la gëm. continué <laughs> ay xale lañ. Mhm. Agogo jiitoo na mu ci làmb dopp vingt ans ba mu bëri judduwu ma. yàlla ëpp na ko yàlla def na <laughs> xam nga may rayante di di rampe boo war a dajeeg moom boo xoolee Yékini Lac de Guiers bi ci laa bëri sama premier combat. Mhm. te moom moo bëri spécial moo Cheikh bu waalo mhm. Cheikh léegi mi voyage na quoi. xam nga boobu maa bëri premier combat bi ma rayante rayante ba yàlla def ñu daje war a bëre. waaw léegi nag moom suma grand la te yow da nga ko ne yow xale nga. kon boo mhm. ñëwee da war a def yi fi xale. mooy yow yaa war a def lépp. te noonu nga ko defee sax bi nga ñëwee yaa yaa yaa ko songu. Mhm. yaa jàpp yaa manœuvre ba ba nga koy wër ndomb. nga daan ko. waaw parce que moom damay dégg gars yi di wax moom daa dëgër. combat yi bëri yëpp day yàgg. Mhm. yaa ngi dégg te yaakaar naa ne boo nekkee xale di entraîné moom pas wax nii rek quoi di entraîné mais bi ngeen jàppante lu tax kutoo kut nga bëgg koo manœuvrer di ko jaay doole di ko forcer lu tax. loolu man li ma bëggoon sax moom do moom bëggul lool. loolu damaa bëggoon ñu bëre. man ndoxtu bëre daa ne ci man de damaa bëggoon ñu bëre. daa bañoon bëre mais damaa def un deux trois quatre ma gis ni day freiné rek ma xam ni kii dañ ko ne dama nga juumloo booy bi moom hmm. ñëwul pour def dara dafa ñëwoon rek pour ma juum man mu appliqué ci li muy juum mais wax naa ko signature na ko. damay xëy benn jour di bëri ay cent nangam litre man xale laa de mais damaa jël nag jël saaku ceeb jël lu gars yi di jël nii dama kaa jël. Mhm. man xaaruma combat ren dong barki dem ba may woo sax gis nga bi ma fekkoon yoonu dëkk ba may dem voyage. lu wóor dégg. Mhm. man làmb laay dund moom laa gëm. dama ko gëm mais naka nga bëgg moom bi ngeen jàppante. Ah? ba nga wër ko ndombo naka nga bëgg na parce que dañoo gis pompe nga ko benn ñaar après. waa arbitre xam man sama combat boo xoolee sama combat arbitre da daan siffler rek ma tàq ñëw. Mhm. yaa ngi dégg mais bii arbitre dafa siffler ma taxaw tuuti xool ko xam ni kii ma la sum waaye mi ngi dox sama maayaan mais du ñëw yaa ngi dégg. Mhm. ma naa dox ci kawam ma dox ci kawam def un deux xam nga mu taxaw rek ma jékki-jékki rek màmbu ci kawam dóor ko benn laaw ci loos ñu daw jàppante bañ jàppante man naa ko. Mhm. man naa ko di ko palaake mu bañ ma delloo ko <laughs> man naax di ko plaqué mu bañ ma koy delloo def jargoondu kooku moom xam nga ma laa mm-hmm. mu bañ ñu daw jàppante tegante dënn taxaw léegi ci biir jàppante bi nag bañ tegantee dënn ba taxaw ma ak moom mm-hmm. man sama xel xam naa ne làmb ji jeex na ndax lan da nga sentir ne yaa ëpp doole wala boog li nga yaakaar nekkul foofu non man damaa mën a bëre te kii Ouzin du question dara de yàlla suñu borom moo tax ma yàq ak yàlla bu ma génn fi ma toog ma am combat ak ma ñàqu ko bañ am benn rythme entraînement laa yor damay entraînement ba démb démb ba tey damay daj ay coono yu métti damay mel dañ ma naan ngay dee ma man damay gëm ni suñu jàppanteewul damay gëm lépp man maa a def dañoo jàppante mu taxaw ma taxaw ma jàpp ba mu dëgër zongale ko zongale bi sax fi ma jàpp boo xoolee dafa nooy parce que ngeen mu yooyu la def dama zongale sama loxo di ma fàq ko daw wóor ko xam fi may waxee. Mhm. dóor yooyu ma ko dem dóor sax neexuma parce que doo doomu géwél laa bu ma sañoon du dóor kenn. déedéet Boy Dóor lañ wax. waaw mooy li ma la wax ni déggoo ma ne la dóor yi mu ko dem dóor neexuma doomu géwal laa bu ma sañoon. doomu géwal du dóoraat. déedéet mais laamu mooy suñu nattu rek. Hmm? doomu géwal du dóoraat. non wane dëgg jeekul nga a ñaan. non say géer tamit di <laughs> xam nga hmm. waaw ma def un deux gis ni moom bàyyikuwul mi ngi mi ngi dëgëral. Hmm. waaw te ñun tamit du ay seer quoi ay nante lañ xam nga. waaw léegi ma dund ak moom foofu action rek xam naa ne day bàyyi après dóor ko ba mu kaaw ma bës ko. après laa mu jeex waa laa mu mais laa mu jeex ñu gis la mbooloo mi nga àndal bari nañu. Mhm. soo jógee waa géej waa jóg sa diggante yow ak ñoom lan la. mooy ni ma mel nii nii maa ngi koy wax sama open presse maa leen man mbedd bi xar laa ko waa nii la ma yàlla bindee mais làmb bu doon teg paaka rayante man du ma mais mbedd bi isbu laa ibaadu laa loolu moom moo ñu war dama koy wax tout le temps nag foo kuy toog naan man la man la man la di aj ay mbagg du dara mais moytul ma ko def tekk genre nit yooyu noonu bàyyi leen xel moytu leen. Hmm. man sama koñ boo fa duggoon nii nii nii nii parce que kii sama mag la sama xarit la kii ñooy ànd mais boo duggoon sama koñ nga ne bàyyi ma ñaar yàlla naan kooku wàlliw la du wax. ñëpp laa seegal jàmm ñëpp laa seegal jàmm ñëpp. bàkke alxuraanu karim caatu ngéwél mhm. géwél nga ne géwél du dóoraat non géwél day ko bu sañoon du dóoraat yow yaa fi taxaw léegi wax ne sama kombaa damay xeex waa non damay bëre di dóor ndax ah. xam nga làmb ji mooy lool bu ma dóorewul ñu dóor ma mais tey jii nii jekkul géwél war a ñaan ay géeram tamit jàpp di hmm, duma yéen a ngi jàpp seen géwél di leen noggatu de <laughs> yéen a ngi jàpp seen géwél di leen noggatu waaw mais làmb la xam nga ku nekk tey jii nii mooy li ñuy wax rek dafa doon loo xam ni métier la te si nekk boo jógee àdduna mooy topp sa ginnaaw te tey jii nii boo jógee rek benn nit topp sa ginnaaw war na laa jaral nga reyante ba dee asantuma na nga jóg doon xale yow ñu jóg defaloo leen dara du dara loo leen defal xëy na yow yaa leen di woon taalibe wala dara rek wala nga wan leen lu la bëggee xam nga tey jii bu buñ toppee sa ginnaaw yow la la war mooy rayante ba ñoom buñ la gisee à lu mën a am ñu xam ne kii rayante na quoi. mais lan moo tax boo yëpp bëgg a bëgg ak yow man moom du ma la nëbb wax naa la ko démb nee naa la ñi may woo di wax naan dama bëgg a taseeg caatu ngéwél dañoo bàyyi lan moo tax booy bëgg bëgg ak yow. kanam gu lewet bi la wala dañoo jàpp ne fi la gën a nooyee wala dañoo jàpp bu ñu bëgg yow ci la bëri ëpp lan la sa diggante ak ñoom. ah loolu kañ man xam naa ne ñoom da leen koy laaj mais xëy na tamit. wala bayre xam nga non non man kañ aw ma bayre man laa mujj maa ci xëy na tey jii nag am na boo yoo xam ne bu mu bëggee bëreeg man man dama leen di nangu lool ndax xam nga lu tax. Hmm. mooy làmb la tey jii nii ku ci nekk. mooy li naan borom bitigu mbagg boo gis xol ba magasin moo ci nekk. Hmm. tey jii nii booy bu ci bëgg bëreeg man xëy na du du dara. mais xëy na gis nañ ni maa ngi def sama ay preuve gis nañ ni mooy loolu man tey jii ni nin bëggee bëreek man man am na sama ay mag yoo xamante ni man noonu laa bëggee bëreek ñoom tamit làmb mooy doxe noonu ko quoi mais tey jii nii ku ñu ci làmb booleel rek ku mën a doon dañuy bëreek yow. Hmm. gis ngeen commencé naa ba yegg si fii waxuma leen palmarès su mbër yi mais dafa am koo xamante ni muy ak su ma confrère la koo xamante ni ku baax la dama jotee jokkoo ak moom. mu jox ma jot jot maa jox palmarès su ñaari mbër yi nga xamante ñoo fi toog ba tax na dama leen di bàyyi ñu ànd ak ñoom aadama kàggu ñu dem déglu palmarès yi te dellu siwaat bu ñu dellu siwaatee gën a yaatal waxtaan wi. jërëjëf Ousseyn lay nuyu bu baax a baax di la siyaare di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax di nuyu équipe bu wasaare bi yëpp bàyyi jiil suma waay aadama sëñ Bas si siyaar kulluhum rek mboolem ku fa nekk waaw ak ñi nga xam ne ñoo safoo wasaare lépp. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di rafetlu liggéey bi aussi tamit Ouzin ñi ngi seetaan plateau yi ñi ngi seetaan jàmmaloo yi macha allah làmb moom noonu la ku ñëw ak sa tuusu bopp ku yokkut yaa wàññi te franchement bi nga fi ñëwee ba léegi danga nga yokk quoi wax dëgg yàlla. Mhm, tey nag nga invité ay ndaanaan nga invité ñoo xamante bi nii seen débuté làmb yàggut muy ñu toog si plateau bi yëpp wax dëgg yàlla buñ kenn ku nekk bu la waxee année bii la dugg si làmb da nga naan déedéet parce que yàggagun ci quoi. te macha allah am nañ ci tur te ñu ngi def fulla ñu ngi def jom ñu ngi def fayda te macha allah ndaanaan yooyu toog foofu yëpp seen i defet bariwul maa ngi koy siyaare bu baax a baax bu ma juumul moom mi ngi ci dix combat moom xale bi nga xamante bi nii mooy caatu ngéwél parce que boo dee xool digganteem ak kilo mburu baat ak tontu la digganteem ak poti baabooy baat ak tontu la digganteem ak xale bi nga xamante mooy aussi tamit booy jóob baat ak tontu la digganteem ak caatu baay paate baat ak tontu la digganteem ak farwu jar aussi tamit baat ak tontu la digganteem ak booy jóob baat ak tontu la digganteem ak Fils de salo baat ak tontu la digganteem ak alliance biram aussi baat ak tontu la nga xam ne ñaari defet la am ci palmarès am jikoo moo ko njëkk daan jikoo boobu aussi tamit war nañ koo geesu parce que bam daanee caatu ngéwél ba tey bëriwut te kenn mësu koo féete kaw daan na daanaan yu bëree bëri jigo da ko moo ko daan ak xale bi nga xam mooy aada faas waaw ba tey dama la si dollil beneen champion bi toog rek mooy xale bi nga xamante bi ni mooy Baye Mandiaye di koo xamante bi ni wax dëgg yàlla passion ci làmb yaakaar naa ne roi des arènes la parce que am na gëm-gëm bi moo xale yooyu fi toog yëpp koo ci laaj danaa lay roi des laa bëgg doon Baye Mandiaye bi mu duggee si làmb moom yàggut jouru combat Yékini ak la de bu ma jumul si la bëre premier combat daal di daan nombre de combat mi ngi toll ci sept combat sept victoire parce que digganteem mag almaami baat ak tontu la digganteem ak saara bu parcelle baat ak tontu la digganteem mag doomu parcelle baat ak tontu la digganteem mag irkil baat ak tontu la digganteem ak xale bi nga xamante bi ni ndeysaan mooy àggagoo baat ak tontu la digganteem ak xale bi nga xamante bi ni mooy euh, kobala la air cinq baat tontu la muy xale boo xamante bi nii wax dëgg yàlla ci làmb foog ñu bàyyi ko xel parce que man siifur naa ko ci mbapat yi moom ak Mbagnick Diouf Kayre moomu toog siifur naa leen ci mbapat siifur naa leen ci arène Baye Ma Ndiaye nga gis digganteem ak Agogo trois dernier combat mi mujj muy xale bi nga xamante bi ni mooy Agogo di xale bi nga xamante bi ni mooy Irkil di xale bi nga xam ne mooy doomu parcel parce que parcelle moom yaakaar naa dugg na fa quatre fois am fa quatre victoire kon jar na nag ñu bàyyi ko xel bu baax parce que xam naa ne mu ngi ci seen kaw te du leen may dara jaajëf. mbokk yi gis ngeen moor ànd Anta ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom jàmbaar la bi ñu ko xamee ba léegi ci liggéey lañ ko xam geste bu rafet sans façon daal kontaan naa ci yow bu baax a baax kontaan naa ci yow bu baax a baax gis ngeen palmarès bi palmarès bu rafet la kii di Thiatou Nguéweul am na 10 combats 8 victoire ak 2 défaites Baye Mandiaye am na 7 combats mbokk yi palmarès su ma ko tegee rek seen xel dina am ci lu ma dem nan nga gisee palmarès su Baye Mandiaye. waaw Baye Mandiaye moom palmarès am wax dëgg yàlla du doon loo xamante ne lu dul lu rafet la wax dëgg yàlla ndax tey jii nii li mu def jafe la. Mhm. mooy génération bi jóg nii nga bëri si sept combats te sa moroom daanu la ci. Mhm. wax dëgg yàlla yombul de yombul wax dëgg neex yàlla. billaahi jàmbaar la gaynde la ndax hmm. génération bi mooy li li cool yu bëri koo si gis ñi am na koo si gis lu mu néew néew néew am na deux défaites dëgg la kon moom bu ci nekkee di xuus yàlla dimbali ko ba léegi nii moom mooy loolu te ñu ngi koy ñaanal yàlla gën a rafetal carrière am hmm. jàmbaar la billaahi naka nga gisee nag nga déggee li mu wax ak naka nga gisee palmarès am moom waaw caatu ngéwél moom man même bu dul plateau bi ñu bokk quoi wax sa mbaax waay wàññiwul sa bàkkee alxuraan man dama ko bëgg sam sampu. du question mais xam nga xam nga problème mais gisee. déglu waxtaanu géwél moom lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg ci may ma lay mujj. Hmm. yaa ngi dégg ngeen fi nekk di ak di fi géer nekk hmm. man mii sax lay géwél laa. <laughs> Ah, xoolee tey man am na lu ñu bokk. doomu géwél la doomu géwél hmm. moom man dama koy dama koy bëgge wax sa mbaaxu waay am nga ci waaw wàññiwul sa mbaax dara. Mhm. ndax fulaak fayda bi muy demee xam nga gëm-gëm bi. ma koy ñaanal moom it lu mu bëgg ci yoonu carrière moo xam yal na ko yàlla suñu borom defal. gis nga nit nekkul chaque jour da war a toog ak sa mbokku mbër rek da ngeen war a xuloo wala ngeen war a xeelonte yooyu amul man yàlla xam ne sama xel ba rek moom sa nekku ci. lu tax bu ci nekkoon ma wax la ko léegi. non non defal ndànk defal ndànk da xeeb caatu ngeewal déedéet kii su ma xeebul man man wax naa xeeb man sama xel nekkul ci bëreeg moom maanaam jàppee ma ko adversaire comme ay kii dama bëgg a moom yooyu déedéet musuma ma toog sama xel nekk parce que man dama koy ñaanal li mu bëgg ci làmb moo xam yàlla defal ko ko. léegi yow ñan nga ñan nga jàppee comme adversaire. voilà tey boo xoolee man instant bii samay adversaire personne potentiel bébé bis mi ngi fi. yaa ngi dégg bébé bis mi mu paasal. na géej waaye. xam nga tàppet la. ñemewu maa jël. kan mooy tàppeel. ñaan naa laay Pythagore sans gars yi di wax moom it ñemewu maa jël mais man lenn rek laa bëgg. pourtant nag pourtant nag yéen bu ngeen duggee fenn am fa ay 4 victoire 3 victoire da ngeen leen di nenu ñi ngay lim ni ay ndaanaan lañ ci làmb. moom laay wax parce que dafa am benn émission comme tey boo xoolee Thiatou Nguéweul mi mi ngi koy wax mbëru mag yi ñoom ñoo yàq làmb ji xam nga la moo tax ñun dañoo mën a dëkkee nii man la sum ñun ñëwuñu ci làmb pour di bëre nii rek de ay daan dem toog seen kër dañoo bëgg a tekki am kër oto tere suñu ay waajur. yàlla waaye léegi yow bu bu la grand mayul chance yow fan nga jëm. làmb ban xale yi da ngeen war jëflante ba mu neex. ñun ñu jëm ku ci génn ku génn mag ñi mën laa jël. ci ñaar combat ren diis dix. non na ma na ma wan scooter bi mu ci jënd. la loxo may dix combat man sept combat ana vélo bi ma ci am kon xam nga ne làmb doxul. waaye léegi nag ñun suñu grand yi nekk ci kaw toog seeni nekk di ci ay tuñ di mool mool di jantal jantal loolu amul nañ ñoo may booyu ndaw yi sens parce que ñun làmb dafa metti xam lu ma la waajur dañoo yaakaar ñun ñu bëgg leen a dimbali comprendre nga ñu nekkuñu si làmb di bëri suñu ay morom jëmale kañ 15 ans 20 ans balaa si ñoom nga màgget. yaa ngi gis nga làmb bu ko tegoon si yoon CNG rek mën nañ liggéey benn caatu ngeewal mi nga xam ne am na 10 combats. Mm-hmm. Malo Sumbaay am huit huit victoire non heure bi waroon na ko fekk Malo Sumbaay xelam commencé dal quoi. mu commencé ceeñ waaw mais am na tur bi nii ñu ngi naan diw mais mosul sama nday pare saa day ci côté. Mhm. ngor la ñuy demee nii rek. mais dafa metti dafa metti quoi dañu waxante dëgg. lamb nañ ko teg ci yoon xam nga yi ñuy jël ay sans avance di ko jox benn mbër comprendre ko ñu tas ko ci booyu ndaw parce que tamit mbër yooyu gënuñu ñu judd quoi. dañoo gënul judd. ajal micro bi gënuñu waajur yu baax. Hmm. gënuñu ñoo gëm suñu bopp. te ñun lu ñuy liggéey ñoom duñ ko liggéey boo ko weddee si ñoom ku ko ciy weddi nga dajale cinq boy yu mag yu ndaw dajale si ñoom cinq ñu dem diin ya. du ma ko ragal man dama koy dëggal li nga. defal loolu nga xool li ma la soo dix ñoom mënuñu ko soo diis dañuy sàqatoo laa bu baax. dix mënuñu ko soo laa la wax. dañuy sàkkatoo làmb lañ doon daj bi ñuy nekk mbër mu ndaw bi ñu demee ba nekk mbër mu mag dajatuñ ko loolu kay dama la koy dëggalal da ngay gis benn mbër nga bëre comme benn caatu njool benn Baama Njaay nga bëre def say preuve bëre ba màgget ñu naan defoon na ko fi nga romb gaan ma la suma di ñaanaatu wala di xëy di fëgg ay bureau kan moo ko ñaan yàlla kenn dañoo ñaan yàlla di bëre ngir loolu làmb ñun bu ñu ci duggee dëgg la su suñuy supporter ci lañ mais dañoo bëgg am teraanga comme suñu ay nawle mm-hmm. xam nga li ma la mm-hmm. dañoo bëgg am teraanga comme suñu ay nawle mais làmb ji dafa bëri ay gaay dañuy guuxaate man du ma la nëbbu de benn mbër bu mag dawul sama yaram aw ma xaritu mbër bu mag bëggumaa xamante ak ñoom su ma la rombee ku ma ci nuyuwul du ma la nuyu licence bi ñu dagg laa dagg te maa leen gën a ñemee maa leen ëpp fit bu ñu génnee bu leen dix personnes toppee man moyen de chose deux personnes dañ ma topp te doyloo naa leen li jëntuwuma leen non Ouzin billahi sa waay lu man commencé daw sa non Baye lu am solo lay wax barki Seydina Muhammad boo xoolee ba dem maay génn benn interview SBT di ko wax hmm. gis nga làmb ji mooy mooy li ñuy wax te nag daa am daa am ñoo xamante ni dañoo ragal comme li Baye Mandiaye di def nii mooy grand mbër yu mag yi ñoo yàq làmb ji mais nag ñi ko ñimee wax bariwul hmm. mooy mbër yu mag yi ñoo yàq làmb ji barki alxuraan ndax tey ji xoolal làmb bi fi ay Tyson di nekk fu mbër toll dañ koy naw mais li ma Mandiaye wax ñun VIP yi ngay dégg. ñun ku leen am ci ay combat Baye Mandiaye sept combat sept victoire yi mu am mbër yu mag yi ñoom bi ñu koy am ñu ngi commencé am xaalis. mais lan moo waral làmb ji yow tey jii nii da ngay gis ma Mandiaye moom mu ngi laaj koo xam ni sax moom ma Mandiaye moo ko gën palmarès de. mais dangay gis muy dëxëñu naan noo booy du seen moroom ba kañ. mooy li ma wax mooy li ma dégg ñu naan ay association jeune leader association grand leader man xam nga ban association laa bëgg te mbër mu ko gëm ñu taxaw ci grand yi nga xam ne ñu ngi ci làmb ji demuñu bougé wuñu bañ na du mooy seen rakk yi sens ñooñu rek lan war a créer association génne leen làmb ji barke alxuraan ndax tamit léegi léegi léegi ñan ñoo fi nekk ñan ñoo fi nekk nekk ay grand poy bañ a gën a génn làmb ji ba pare di tardel lamb ji limal ma ko ci lamb ji ñu ko lamb ji ñu koy tardel premièrement VIP yi ñoom ñoo njëkk a tardel lamb ji xam nga la fan mooy njëkk lamb moo bari naxante ma waxaat la ci beneen affaire mhm. mooy tey jii ministre bi génnoon na fi ne mbëri ay nervi lan dugg na fii génn fii mhm. ñoom ñoo dem bureau ministre ba mhm. ñoom ñoo dem de ban demee ñoo dugg ñoo génn ñëw ne baalu na quelque jour lan si teg ministre bi génn Fuuta ne baaluwuma kenn te mu óor la li tax ñu génn ne baalu na am na lu leen jox ban def seen ay poos mooy ñoom jàppalewuñu laa bu ku si nekk sa intérêt personnel ngay xeex. mais est-ce que est-ce que yow tamit ñoom fañ toll boo ko tolloon doo def nañ doxalee. non non loolu boo ko doxalee mooy danga doon baadoo la ndax tey jii yow ñun fi ñu jaar ñoom fa ñu fi ñuy jaar ñun ñi ñoom fa lañ jaar. Mhm. ñoom galère na xam nañ li si mbër mu ndaw. mais tey jii ñoom bu ñu demee ba egg on se bëgg a def loolu mel noonu kon ñooñu noonu mooy ñoom seen bopp moo leen ñor te nag àdduna du sa bopp kase. fële que ngay sóoraale sa ay rakk barki Seydina Muhammad lamb ji moo laaj seggaat defaraat tey jii avance avance yu bari yin fi xewal tey jii imagine la ñu jël dama koy wax par exemple benn Balla Gaye jël ko jox ko cinq avance mm-hmm. ay prix de cent cinquante millions cent million loolu imagine ñu jël ko tasoon nu ko ñun espoir yi tëggal leen ko ay tournoi tëggal nu ko ay tournoi yoo xamante ne lu mu new néew ku si nekk bu nit ñi kun si fay tournoi cinq million wala quatre millions nga daw bëre ba bëgg dee foo xam dugg mais tey jii ñoom ñooñu noonu lu tax ñoom amuñu mais nag xam nga xam nga xam nga problème bi mooy problème bi mooy mbëri ñoo logigul parce que xam nga sama mbéyu loosugul euh, yéen ñaa yéen a fi toog am na yeneen ñaa ñoo xamante ne waroon nañu fee ñëw te yéen ñeent ñëpp a joxe woon seen accord mais gisoo leen fi léegi nag li am foofu mooy am ci ñeneen ñi am ci ñeneen ñi. waxee leen est-ce que di nga nangu mbëri a ñëw fii. bi ñu waree ñëw sax paas teewu leen. loolu lépp ba tey mën na nekk nga loolu mën na nekk. Mhm. ndax mooy làmb ju doxul. tey jii nii mooy li Baye Ma Ndiaye wax ñun ñii nii ku si bëre xam nga lan nga am Baye Ma Ndiaye déwéngale bëri na moo daan nga xëy nekk koñ di bëggati jaa ngeen jëf drapeau ba la nga siy am yow mën ngaa bëre ba pare sa xëy yàlla xam na ne cent franc yoo denc doo ko am bu la làmb ja ndax ndax loo am da nga koy bëgg a def si làmb ji ngeen am ndam mais mais li may dégg ñu naan li ma fere ci làmb ji moo foofu li ma fay est-ce que loolu dëgg la pire mu bëri li ñuy fere ñun ñii li ñun ñii barki Seydina Muhammad ñun li ñuy fere ñun sunu génération muy ma Mandiaye ñun ñi nii ku ci nekk am nañ ñuy jàppale te ñu ñuy jàppale rek li nuy may day ëpp li nu fay te lépp si làmb ji la jëmaat plus ah li nu fay. ba ci ba ci damay dégg yenn mbër yi ñu naan bi ma paree ay bor daf ma cee fekk. mais dëgg la ndax tey jii nii xam nga lan mooy problème bi da ngay waaj bis nga gis ne yow sa koñ ñëpp ngi taxaw maire yi xale yi ñëpp yow lépp lu ne la dalay may ndam da koy fexe pour am ndam mais mooy grand frère yi ñoom ñoo war a gëstuwaat seen ay rakk bu baax a baax a baax man mooy li Baye Mandiaye wax rek man benn VIP dawul sama yaram barki naa mu Muhammad ba si am na ay VIP yu ma laa la xoolal su ma leen rombee lu ñuy wax booy bii daa ñime bandi bandi du aw ma seen jot ndax xam nga lan mooy problème bi mooy ñoom amuñu suñu jot nawloo ñu ñu tey jii ñii ñoom bu ñu nawloo woon ñun ñu nawloo leen mais làmb ji moo moo bari naxante barki alxuraan te lépp si VIP yi la tey jii nii ñoom ku ci jël ku ci ku ci ku ci ay Tyson ay Tyson bi ñu ciy toll. Mhm. dañ doon oo sponsor. di jàppale làmb di jël di di Tyson maanaam daa demoon ba partout dans le monde da nga doon gis dañ koy invité ay canal dañ koy invité fépp ainsi VIP kan lañ si invité canal. mooy seen liggéey dafa rafetul. dëgg nag du neex quoi. dafa mel dafa am loo ci bëgg a yokk. parce que comme comme Ousin lu caat di wax nii soo xoolee tey suñu ministre bi Matar Ba. Mhm. tey da nga gis exemple benn Gris Bordeaux boo xam moom danaan Matar ba bu nekkee gaayam Gris Bordeaux mhm. ak li muy defal Gris Bordeaux làmb loxo dafa wala Gris xam loolu intérêt personnel la ñoom ñaar quoi mhm. pas intérêt làmb mhm. yaa dégg si ngàttal du ko daggee Gris Bordeaux ñoo ñëpp ba ci suuf amul tur ñoom lu ñuy prouver ci làmb foo leen fekk ñi ngeeg seeni kër yu rafet yor seeni teere di am ay suq nag ci suuf mooy yenn booy nga xam ñoom maa ngi ànd ak diggu moo leen neex bu ñuy dem diine na la yow booy foo nekk gàddu sa saak dem ñoom xëy suba nga woole na la grand bi tey dama mooy la noonu ñëwal gaal ñu teg caan yow nga toog ràcc. des fois sax nga gis. waaw mbër mu ndaw bi. waaw léegi yow ko mu ne damaa xaw a tooy. da ngaa yàmbar mooy li ma la mooy yow nga yàggee yàggee dem man man sama jëmi bopp man waalo laa nekk. Mhm. Hmm? mbër yu mag foofu yu fa nekk yëpp yëpp yëpp amu ci kenn koo xam te di nga taxaw na Baye Mandiaye dina ñëw sama kër amul. parce xam nga la laa gëm. sa yaay bu la ñaanalee nga nekk xale noo gëmal sa bopp bu la leereen sa yaay dafa liggéey yow boo góorgóorloo tuuti suñu borom mën na laa dimbali te ñun ñi ñëpp suñuy waajur dañoo liggéey mais gis nga tamit li dafa metti moo waral ngay gis yenn mbir yi di dem di dugg sax ci ay détails mm-hmm. xam suma ma nga nekk xale nekk zëm yaay yaakaar la papa yaakaar la te caatu ngéwal kee topp ko nee da koo yaakaar mm-hmm. kii nii bàyyi léppam ñëw ànd ak man daf ma yaakaar léegi ñee lu ñun ñoo leen ëpp ay charge de ñun dañ ñoo yaakaar bu ñu xëyee junni du nekk suñu poos. billaahi dégg nga fu ma waxee. am na benn promoteur bu tëggoon làmb. combat Boy Niang bi ah. Mhm. promoteur boobu du ma du ma tudd bu mag. bu mag su ma waa combat bi passé. Mhm. ki ka tëgg ki am na benn mbër. dafa sol sponsor bi jël téere bi teg ko fii. mais yaa dégg ci plateau yi mu naan ko. dimbali li waaw solo sa lii waaye di ko gëdd di ko hmm. humilier hmm. sponsor bi di ko di ko humilier quoi man loolu su ma ko defoon ma simmi yére bi simmi sponsor am sànni ko foofu woon ko ginnaaw yorul sama wërsëg waa léegi loolu xam la moo ko waral dañ ñoo ñàkk bañ a respecté hmm. te ñoom lu ñu am laamu moo leen ko may mais gis nga mbëri ndaw yi ñun ku ñu joxul cër ñun nañ jox suñu boppu cër ko waa ñoom may signaler ne temps bi li ci des bariwul mais tey gannaaw yéen ñaar dama bëggoon def jàmmaarloo bi mais wax ji tax na sama yaram sax daw na mënatuma koo mënatuma koo tàngal gannaaw bi mu doon ay doom géwél ngeen. non non gis nga gis nga mën a njaay doom mi njaay doom mi yàlla xam na ne laaj ko. mën a moom gisew nu woon di musuñoo def dara. Mhm. mais benn booy laa benn booy bu muy boo xamante ni booyam la laa doon mhm. dégganteel. Mhm. ma ne ko non man Ndiaye 2 damaa fier ci moom. te bañkat bi mu doon man mooy bañkat bi ma doon. ñu nay doomi géwél la. jéeri ngoone mooy suñu waaw voilà gis nga am na loo xamante ne ñun ay bañkat lan te gis nga gars yi dañuy bañ bañkat. dañuy bañ bañkat li bëgg mooy ku leen di soq di leen coog man du ma coogu mbër mooy. déedéet wax tey jii nag làmb ji ñun sanu génération am nga la mooy problème bi tey jii maa Ndiaye 2. dañuy wax dëgg suba hmm. da gis benn suxumbar génn fële na hmm. ñun lay attaqué. waaw ndax mooy xam na ni. moom amul la ci làmb ji coggu hmm. rek moo ko mën a may. mais fi mu toll yow boo mënoon limal say adversaire nga xamante ni bu ko ñi ñu seetaan ci wasaare dégg yi xam ne ay adversaires yu la ñan nga may limal. waaw man sama ay adversaire dama bëgg dama bëgg mbër yi di lim seen adversaire koo ci wax mu ne non su ma ko tuddee day yaakaar dama ko pare. loolu non non tey xam nga la mooy problème bi mooy tey jii du du question ko koo tuddee dañ la naan tey jii xam nga promoteurs yi xam nañ li jaadu tey jii nga ne fii naan diw laa bëgg diw laali taxul nga bëreeg diw mais tey jii ñun ñu ngi fi ngir làmb ñu lay xale lan tey jii nii si sañoon chaque jour da ngay bëre tey jii nii muy njaay muy man ku ci ne sax si la situation di tene sa côté boo newul ci combat des fois day toll ay guddi yoo xam ne day miti sa côté ñun ñëpp ndax ay xale lan tey jii nii des fois da ngay xëy bëgg rek la benn business sama doole la voilà mooy nag léegi liy problème bi mooy ñun suñu ay adversaire ñu ngi ci gis nga cinq avance yooyu ñuy jox VIP si xale yi sax la ware woon. Mhm. te nan la ware mooy ñu tëggal ñun ñun ñu ngi fi sanu génération ñu ngi fi. tey jii barki Seydina Mouhamad man óor na ma ñun ñii sanu génération ku si tëggoon kalaaf boo xam ne da see jël huit mbër. tëggu ko ñu tëgg VIP yi feneen. yow am na VIP yoo xam ne ñun ñoo leen ëpp mbooloo fu junni yoo am na amuñu ay cinq car sax mënuñu koo yóbbu mm-hmm. stade benn car sax duñ ko yóbbu waaw kon léegi ñun kese wala tey leen nga tëgg caatu ngéwal boole ko ci journée bi ñoom dañuy ñëw di sàqatoo caatu ngéwal rek léegi caatu ngéwal mooy neexal journée bi am na benn combat caatu ngéwal loolu am na mhm. moom moo taaral journée bi mooy ba muy daan kii lu mu doomu kii bi rek euh, fils de Zalo am na ay mbër yoo xam ñoom ñoo ko njëkk bëri donte moom moo bëri grand combat mhm. mais tey moo taaral bis boobu mhm. moom moo ko taaral Mhm. yaa ngi dégg tey dangay xool am na ay mbër yu mag yoon mi ngi ngi fayeeku nii ay millions. seen combat bàkki alxuraani karim benn super duñ ko génnee seen koñ benn caatu ngéwél bi nga xamante ni tey 2000 lañ koy fay mu ñëw indi indi un million exemple personne ci stade bi. te 2000 francs lañ ko fay. loolu noonu ba kay da xoolal suñu combat Ndiaye yaa nga fa. waaw kon Ndiaye bëri naa bi. comme exemple la ma gis ay mbooloo. waaw loolu affaire mais nag kon léegi mooy li lay wan ñun ñi nii. ñun ñooy làmb te tey jii nii ñun ku ñu tëgg nga bëgg nga bañ day fees. Euh, ñoo ngi may signaler ñoo ngi may signaler waxantee dëgg. waaw caatu wala Baye mii bañ ñëwee fii. Mm. suñ ko tegoon si yoon seen oto la ñu waroon gaari yi. mooy yoon. non mi ngi la koy wax léegi de ñi nga woo. bu leen mere. dëgg la dëkk bi moo metti xamoo lu leen téye. Mhm. yëg-yëg rek la nit di amee bëgg a ñëw mhm. mais ñun bu ñu ko tegoon si yoon war nañ fi gaare loo xam te man la sumu waaye dañuy yéeg ñëw toog fii mais làmb jaam lañ ñu jàppee baadoo la jaam ñun du ñu jaamu kenn dina dog léegi ñoo ngi si signaler ne temps bi jeex na su ngeen amoon kàddu yu mujj lan lay doon ñu tàggatoo ba beneen yoon incha allah waaw di la sant di la gërëm mhm. di sant caatu ngiwal di ko ñaan li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal di sant deev deev maa ngi lay bëgg bu baax yaa ngi may jàppale di sant sama yaay Abdou Mbaye maa ngi lay sant mbii la Anta Thiam sama mag xam nga di sant waaw guy gi njett mbaar moom suru gunaas mhm. xam nga lu ma laa mhm. njool Malick maa ngi lay sant di la gërëm di sant Jibi Balle papa Jibi Sarr Bayal Thierno mbaay ñoom Ama Khoulé Zil Ndiaye xam nga sa waa guy gi bàyyiwuma kenn ñoom Modou Baare Ibrahima Ada ay see guy gi bi maa ngi leen di sant di leen ak waa njett mbaar dawalkatu sereer yi di sant tamit di ñaanal sam booy nekk nekk Samet ñoom Tete Vie Ale Ahmed Ndiaye xam nga Fallou Armand Ndiago bu tàng bi mëgëy xam nga di ñaanal seex bëggee tamit ak ñàkk saw képp ku nekk 100 rek Sambour yëpp maa ngi lay ñaanal suñu borom génnee la fa di ñaanal bébé Diène suñu mbokk la bébé Saalum. Mhm. Pape Kambouré na mhm. di ko ñaanal moom it suñu borom génnee leen fa. di tamit ñu tëdd ci suuf yàlla na suuf oyof seen kaw. amiin yàlla na leen yërëm xaare leen aljanam di ñaan bépp mbër buy tax ngemb ci làmb yàlla na la yàlla may teraanga boo teralee see ay waajur. làmb metti na torop torop di wax nag gars yi dañu am xol bu rafet ci mbër yi mbër yu ndaw yi yu mag yi seen wàll wëy na nekkuñu fi dul seen intérêt bopp seen wàll wëy na nañ ñu dimbali ngir yàlla ak yonent bi ñun booy ñii ñun dañoo am ñeneen ñu bootu suñu ginnaaw ñoo xam ñun dañ leen war a dimbali. Siteu rek laa si gis ku ci wax lu am importance. Siteu xaw fu mu dëkk. mais moom rek laa si gis ku ci wax mais keneen koo ci dégg micro mu naa la je pense que di aj ay mbagg no billaay sama kii mooy sama papa diw loolu ñaar la. ne fàttaliku leen ba ngeen di door am na booy toppoon seen ginnaaw di xeex di xuloo di reyante ngir seeni i jëmm di leen teel seen i saak seen yére booy munta mënut a geesu sax ngeen geesu booy am loo leen dimbalee booy sonn nañ torop. kontaan nañ ci yow kontaan nañ yow Thiatou Nguéweul lan ngay tàggatoo. waaw di di la bu baax Ouzin di bëggee Ndiaye de di waaw di kontaan ci moom bu baax a baax ndax tey jii nii am nga leen dafa ne man bu ma ñëwee fi gis Ndiaye de damaa kontaan ndax li naan nee na ko bandum nit mbokkam Mhm. tey ji waxuñu fi pour loo xamante ni comme non si que ni ñun ñaar ay mbokkulaan rek moo tax non non. mais wax comme en tant que dëgg ndax wax li nga xamante ni mooy li nekk ci town bi. di bëggee copain Ndiaye deux bi di bëggee waaw di bëggee waat Bamba sama booy bi. Mhm. di bëggee sama booy yi Kër Masaar ñoom Zil ñoom Kalaamu ñoom Saaliw Kara di bëggee Garmi di bëggee sama gaay aussi waayoof ah di bëggee sama maire bu baax a baax di bëggee sunu monsieur le ab laay Diouf saar maa ngi koy bëggee bu baax di bëggee Njambe Diop aussi. di bëggee Abdou Naar di bëggee Thiawlaay aussi di bëggee Ami Top di bëggee mbay ñàng di bëggee Momadou Gueye Moustapha Tall xam nga di bëggee ñëpp daal di ñaan ci dëkk bi jaamu di wax ni nag mooy làmb ji mooy VIP yi ñoom nan taxaw ñu xoolaat seen bopp ñu defaraat seen toogaay. xoolaat seen taxawaay. ñu xam ni ñoom ëllëg dañuy dooni mag te gis nga xale day fayu li gën a bon mooy dem ba doon mag xale dab la ci mbedd jàpp la nangu sa bant bule say tànk nga jaaxaan. nan def lu rafet quoi te xam ne ñoom ñoom ñun fi ñu toll ñoom jaar nañ fa. te ban fay toll ñan fekkoon ci làmb dañoo amoon fulla ci làmb. mais ñoom bu fekkee koo ci dégg mooy li Ndiaye di wax koo ci dégg danaan diw sama père la. da ñu mujjee puso bi mu réer seen yàq làmb ji. ñoom ñëpp koo ci gis. koo léegi VIP boo ci gis am na papa joo xam ne magew ko cinq ans. waaw. ñoom ñëpp. mbaa du seen moom la def ko seen papa. xoolal kii caat xool mbëri dem voyage yëpp dem Europe toog fa ñooñ ku leen di mere yow doo nit sa waay ñaata at dix ans yow yaay toog fii di bëri amoo ci doon wax naan ay révélation dañoo daw ak uh-huh. sa waay bàkki ak cee ay morom am na ñoom bu fa tegoon seen tànk duñ ñëwaat ñi da ngay wax dëgg da nga toog dix ans di bëri doo am vélo nga dem Europe def fa ñaari weer wala ñaari at ñëw fii tabax kër di jàppale di di jàppale sax nga doon bëreel. di jàpp ah, xooloo mbër fa dem. ñi eh, ngi dimbali si du bun man ma ngi nii damay dimbali sa gaa yaa ngi doon xas. waaw te du bun bi muy ne fii day jékki-jékki. léegi yow mu ngi am coow Sénégal gi. tim ko mais du bun day jékki-jékki am problème mu 2000. gis mais instant yi du bun presque chaque fin du mois mu yónnee ma xaalis. waaw léegi gis nga gis nga. léegi bu toogoon fii est lool ci man. nga ànd li ñuy wax nii lu am important la. bu baax gis nga Ouzin Ouzin nañu waxante dëgg mbër bu dem Europe no bu ñëwaatul ne ko massa coono te xam ni coono yi mu fi dem daj ba dem moo suñu borom rek xam nongolo nongolo ba ma yëgee daa fa yaa damaa kontaan mhm. ndax dama koo ñeewantal mhm. te gis nga ni da am xol bu nice quoi doomu mhm. aadama xam nga balaa mais dafa am benn mbir mu nekk si affaire bi rek muy kii man ku ci nekk noo teralee say waajur géewul kase ñu nekk ñu fi di bëre nii pour jibi bàlle mi di yuuxu kase de bis ñëw ma yeew dem këram naa ko may ma dépasse ma jox sama njaboot loolu bàyyiwuñ ci làmb de dañ see bëgg a am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 tey moom émission bi sama yaram sax da cee xaw a daw moo tax mënu ma mënu ma mënu ma waxee neneen bëggoon naa leen xaw a tàngal yooyu tuuti mais mënuñu ko ndax ku ci nekk ak na muy ñëwee ak na muy waxee kontaan naa ci yow. kontaan naa ci yow moom tamit kontaan ci Ndiaye waaw kàddu yi rafet na te ku dëggu la. Mm-hmm. moom Ndiaye kontaan naa ci yow tamit. waaw yow di di sama coach vie coach ak coach Rone. Mm-hmm. di bëggee caatu ngéwal kii moom gaan man sama xel nekkul sax moom sama diggante ak ay làmb. gis ngeen kontaan naa kontaan naa ci yéen bu baax a baax ni lay demee ci jàmmaarloo waaye nag le septembre bi maa ko moom comme que léegi géwél laa gannaaw caat ngéwél géwél la euh, Baye Ndiaye géwél léegi géwél laa sama géeri le 10. Ah. mooy sama anniversaire. bu yemoon nag ngeen waajal ko septembre bi moom maa ko moom. loolu bés la waa bés la du yomb benn yoon. di leen jaajëfal bu baax a baax maa ngi gërëm cuun cuun sama policier bi maa ngi koy gërëm bu baax a baax ba moom sali kenn du moom ci man. kontaan naa ci yow bu baax a baax maa ngi jaajëfal ñëpp Adama kontaan naa ci yow kàggu maa ngi lay jaajëfal di leen jox dig daje ba beneen yoon ci jàmmaar lool jërë ngeen jëf.